ku may woyal sama yaay ma may koy junne yaay mbokk yi maa ngi leen di jaajëfal bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi démb nag dafa nekkoon bis boo xamante ne bis bu spécial la mu nekkoon le vingt neuf mai deux mille vingt deux mu nekkoon journée boo xamante ne xel day dem ci yaay te bu ñu ne yaay xam ne mooy ki nga xamante ni bu bu bu yoon bi diisee rek. yaay moo xuus jàll te kenn jàllewu ko mbokk yaay nekk koo xamante ni kenn mënul wax yaay lan lay représenté ci doomu aadama loolu ñi ci ñàkk yaay xam nañ ko bu baax a baax a baax ñu leen di massawu dina wax ni démb fête des mères la woon mais am na ci ñoo xamante ne fête bi saa yu ñëwee seen xel seen xol seen xalaat day dem ci seen yaay te seen yaay newu fi ñu leen di ñaanal ñoom ñi nga xamante seen yaay dafa jiitu ji yal na yàlla yërëm te xaare leen àjjana te yéexe ñu ñi nga xamante ni seen yaay dafee nekk ñu jaamu yàlla ci seen yaay yaay dañu koy wane yaay nu mu mënti mel yaay la yaay mooy lépp ku sàgganee sa yaay gis ku jël yaayam teg ko ci kaw mbokk yi ñuy wax ni jeunesse bi nañu gën a fonkaat waajur yi nañu gën a taxawaat yaay waajur yi waaye na ñu gën a teralaat waajur yi bu baax a baax a baax man nag ku ne xam na ni sama yaay sama xarit la man sama tante mooy sama yaay loolu àdduna bi ñëpp xam nañ ko moo koy ñaanal gudd fan ak wér tante di la ñaanal yàlla def defal la gudd fan ak wér ba mbébét bi ma am ci yow yàlla suñu borom kàttanal ñu dooleel ñu bañ defal la ko mbokk yi dañuy xuus noonu rek jëm fi nga xamante ne mooy arène national journée bu mag moo fa xewoon Sam Production moo organisé woon grand combat bi doxoon ci diggante Batista ak Fils de Max mais mbokk yi am na combat spécial boo xamante ni oh, xale yi wane nañ seen bopp cosaan feeñ na fa aada feeñ na fa waaye bëre feeñ na fa mbokk yi dañuy dem wala lépp loo xamante ne xew na fa ci wàll ambiance su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca Ibrahima ñu dem te ñëw gis ngeen li nga xamante ni xew na fa ci ambiance gis nga bàkku xale yi xale yi léegi dañoo dégg cosaan mu ngi ñëw ci làmb nañ ko gën a indi mbër boo dee saalum saalum dugg si ci làmb da ngaa a indi li nga xamante ne mooy culture saalum saalum boo dee séeréer boo dugg see ci làmb da indi sa culture boo dee joolaa boo dugg see ci làmb dangay indi sa aada ak cosaan boo dee waalo waalo booy ñëw nala la topp dara dara rek da dag dag da waaw loolu dafa bokk ci liy defar làmb <laughs> loolu dafa bokk ci loo xamante ni dafa leex ba dama bëgg loolu ba dama bëgg nit ku gëm boppam gëm culture xam ne làmb cosaan la aada la culture la gisoo Guiro Seras buy diggu si stade li muy bàkkoo ah day wàngoo ah dem sànni gauche sànni droite parce que tukulóor la te noonu la nit dangay ngay gëm sa cosaan da ngay gëm sa aada mbokk yi dañuy ñëw ci combat yi nga xam ni jot naa xew ci làmb ji yëpp. mu nekkoon ay combat yoo xamante ni combat yu neex la su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ñëw ci combat spécial mbokk yi defal leen jàngat bi ay ca ñu dem arène nationale ba tey Ibrahima Khalilullah ay ca mbokk deuxième combat de la dox ci diggante Yanda 2 ak Rasta Yanda 2 moom nga jàkkaarloo Rasta moo la woon ginnaaw Yanda Rasta Yanda biit na Rasta bañ na Rasta ngemb bu weex Yanda ngemb Lagos Yanda nga koy Yanda ba koy ronu jàpp na fi mu jàpp na Yanda fi mu jàpp na jóg na dóor na ko ci daan na laa ilaaha illallaah eh. am na doole Yanda daan na rasta ndeysaan da koo zongale yenn ko ba ci kaw dóor mu ngi wax ak ñaari mbëri li règlement bi nangu ak li mu bañ dox ci diggante lakkantaan ak Billy Boy Billy moom ngeen jàkkaar lool lakkantaan moo la woon ginnaaw duñu xeex duñu bëre <laughs> waaye ki may waxal xam na boppam daw na jël ko Billy lakkantaan daan na ko awaay ah, lakkantaan daan na Billy lakkantaan daan na Billy Boy saal ko na ñaari yaar door na daw nañ jàpp ko day daanu wala déet bañ na ñaari yaar a ngay door ci suuf ma ngay door ñaari yaar a ngay door sal ko naa ñaari yaar jël nañ ko daan nañ ko wala déet daan nañ ko kàllaap am na sal ko naa daan na ñaari yaar eh sal daan na. dox ci diggante Cobra ak Bass 2 Cobra Bass xeex ba bëri na daw na jëli ko. da koy daan wala déet am na tànk dëj na ko dara xewut daan na waay bas daan na Cobra bas daan na Cobra bas wala déet waaw waxoon naa la ko waajo sifflé mbokk yi combat boo xamante ne combat xale la neex dox ci diggante Zoss ak Léopold nday sax laa ilaaha illallaah waxoon naa la Léopold daan na Zoss Léopold daan na Zoss eh! arbitre bi na diggante Balla bu jam ñaaja ak Maana lan moo nar a Balla ëñ na ko daan Balla bu jam ñaaja daan Maana Balla bu jam ñaaja daan na ko eh! Balla daan ak li mu bañ dox ci diggante yan bu ak R5 yan bu diis moo la woon ginnaaw rakk Fils de Balla la Fils de Balla koy indi école de lutte Balla Gaye la nekk bañ na R5 yan bu diis R5 bañ na ndaanaan la ñaari xale yi dañoo tolloo daanu na daanu na daan na yan bu diis gis ngeen li nga xamante ne xew na arène nationale gis ngeen combat xale yi chaque fois da ngay gis ay xale yoo xamante ne ñu ngi ci lancé bu baax bu am solo di góor góorgóorlu booy góorlu leen. làmb kenn moomu ko làmb sport la boo xamante ni képp kuy xale gëm sa bopp gëm say mbokk ànd ak sa famille dëggal say waajur boo ñëwee ci làmb lépp loo ci bëgg di nga ko am. day day day day yàgg rek mais da ngay am lu neex ndax làmb loolu la képp ku bokk ci làmb bokk ci sa staff yaatal ko mu ñëw. mbokk yi dañuy dem ci combat spécial bi dox ci diggante booy saajo ak Boy Petersen su ko defee ñu defal leen jàngat bi ñëw ci grand combat bi ay ñu dem ci combat boobu. mbokk yi arbitre bi nga waaj a siffler combat spécial bi dox ci diggante Boy ak Boy Petersen Boy Petersen nga ndeysaan ñoom ñaar mbokk yi arbitre bi sifflé na ñoom ñaar a ngi noonu di lewaatoo combat bu nar a gaaw ñaari xale yu tolloo doole ñaari xale yoo xamante ne kenn du may sa morom dara booy Sadio cokkaas na Sadio cokkaas na Petersen a ngi koy wuyu Sadio dagg na lewaatoo bi sànni na gàllaaj bi booy Petersen a ngi dox ci koom Sadio booy Petersen jàppante ne ñoom ñaar da ngay jàppante baaraam bëgg na ko tël plaqué na ko daan na ko eh, eh booy Sadio daan na ko jël bu rëy eh Sadio daan na waay booy Sadio lii lan la waay booy Sadio lii lan la wil lay lay wil li wil li Sadio wil li gis ngeen combat bi dox ci Boy Sadio ak Boy Petersen booy Sadio félicitation wane nga ni ndaanaan nga ci làmb waaye wane nga ni dangaa am loo bëgg ci làmb wax naa ko saa su ne man dama bëgg mbër moo xamante ni boo ñëwee ci làmb ñu gis sa taay gis sa corpulence gis macha allah sa sa liggéey sa entraitement bu baax boo ñëwee ci làmb waneel jom ak fulla ba am ndam yaa ngi naan damay dem ci lutte traditionnelle bi di ci bëree di ci compétir xam naa ci dara ndax dama la ciy fekk waaye ka ngay bëreel nda ka nga doon bëreel ndaanaan la muy Boy Petersen min géey gi la tuddoon nekk ndaanaan di bëre ci lutte traditionnelle def ci ay preuve yu am solo waaye démb gis nga bëre bi bëriwut démb kenn xamul Boy Petersen gisuñu ko sax kenn xamul lu mu indi ndax lan dafa jàppoon ni bu jàppee booy Sadio làmb ja jeex booy Sadio bëreek moom ak technique de tànk bi accompagner ko placage noonu la ko accompagner ba daan ko ñu koy féliciter bu baax di wax ni xale yi nañ ko gën a bàyyi xel booy Sadio war naa mën a bëreeg ku nekk ci làmb nañu ko jël bëreek moom booy Petersen defar waatal nga ñëw ci làmb mais booy ñëwati ci làmb di bëree faw nga xam ni ñaari bëre yi du benn bëre door ak bëre simple du benn bëre door pour nga jàpp sa adversaire mu xam ni yow mbërëntaan nga bërekat nga balaa nga koy jàpp faw nga war ni ko bëgguma laa jàpp mais yéen mbëru simple yi chaque fois lii doon seen difficulté ci làmb mooy da ngeen di ñëw bëgg a wan ni adversaire bi dama laa bëgg a jàpp adversaire bi lu mu mën a bëre mën a bëre du nangu nga jàpp ko te ci bëre lala la waaw loolu nag dañ la ci encouragé bu baax Boy Petersen di la wax nga gën a góorgóorlu ñëw ci làmb mais mbokk yi dañuy dem ci grand combat bi dox ci diggante Batista doomu Zeus bi ak xale bi di fils de Max doomu Max Mbargaan bi nañ dem ci stade ba xool ñaari mbëri ci digg géew bi de xool leen jàngatal leen combat bi su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem ci combat bi. ay ak mbooloo jullit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 Batista numéro 2 doomu Zeus fils de Max papa ma ngi noonu toog di Max mbokk na mbokk yi ndeysaan dimanche 29 mai 2022 arène nationale fils de Max fils de Max Batista fils Batista fils lu nar a lu nar a daan na Batista daan na fils na mbokk yi gis ngeen làmb ji xew ci diggante Batista ak Fils de Max damay ñëwee ci Fils Max Fils Max dañ lay encourager di la wax ni làmb noonu la da ngaa daanu juum ci komba bi njuumte nag bu amul jël du am mais bi nga simmee koo gis nañ ni vraiment yaa ëpp volume ki ngay bëreel ëpp ko volume ak ëpp ko doole du benn. ñëpp xam nañ ni ni nga bëree sa fort la mooy uppercut boobu nga xamante ni euh, Batista da koo moytu te loolu la mbër dëggay moytu fooram Batista mbër mu mën fort bu am foor doone man su ma ko defee damay rëcc déedéet da nga koy moytu ba bis bu ñëwee ci loolu nga bëreek moom daan ko Fils de Max bëri na ak moom ñu lewaatoo may amul la amul sax round d'observation ñu ne bëreet mu attaqué ko Batista ñëw. dugg mu dóor uppercut Batista siggi daw coup bi Batista daa daw coup bi ba génn ci sang bi sang Fils de Max mais Fils de Max bi mu gisee Batista daw génn dafa daw accompagner ko jàpp ko bi mu ko jàppee pour man palaa placage boobu Batista dina daanu mais ndaanaan la parce que day compétir ci lutte traditionnelle yi yaram bi dafa màndi bëre mu arrière deux pas rëppal Fils de Max pour mu def quatre appuis Fils de Max bañ mu daw ñëwaat ci kawam bi mu ko jàppee bi mu ko beenee xamoon naa ne bu jengee rek mën naa daan mu jeng daan Batista wanewaat boppam ci làmp Batista bàyyi leen ko xel combat yi muy bëri yu baree baree bare day wane boppam te gis naa mobilisation bu garaaw ci Batista li ma ko bëgg a laaj na xam naa dinaa ko ko laaj ki mu gis ci tirbin bi muy taal fumigène bi mbokk yi lu garaaw mbër muy bëree sa papa yéeg ci tribune bi yor ay fumigène di ko taal doon supporter loolu bokk na ci li daw sama yaram loolu bokk na ci li gën a gën ma tuuse ci làmb muy wane ni papa ji bu ko neexoon mu wàcc ci cimeekaay bi taxaw ndax doomam mooy bëre su ko neexoon mu accompagner ko ànd ak moom ci géew bi waaye defut loolu ay ci tirbine bi doon supporter fumigène yi nga doon dégg muy tàkk papay Batista moo ko doon taal mbokk yi ñu koy félicité bu baax a baax di ko wax ni mu gën a ko góorgóorlu ci làmb la bokk làmb am nañ ci moom yaakaar laaj na ay ndaanaan waaye mën naa ne Batista ñi mu laaj ñëpp làmb mën na koo booleeg ñooñu. mbokk yi dañuy barastiku rek dem stade Jom Iba Mar ki ñu fa woo mooy Fallou Ndiaye Ndiaye production di féete 15 ans am ci làmb falu ñu ngi lay félicité. di la ñaanal gudd fan ak wér ba lépp loo bëgg ci làmb yàlla defal la ci lu kawe sa njor sëñ Fallou 15 ans du ñaari fan du ñett fan du ñeent fan du at du ñaari at 15 ans du caaxaan te mbir ku ci nekk def ci fukki at ak juróom am nga ci expérience bu baax a baax wane na ko ci bi nga tëggee Grio Seras ak Tonnerre 2 komba boobu combat espoir la waaye événement bi jaay nga ko. ba mu nekk combat boo xamante ni ñiy fayee ko quatre vingt million sax yëguñu leen ci làmb mbokk yi dañuy dem stade Iba Mar wan leen ambiance bi fa xew dellusiwaat ci plateau bi ay ca ñu dem. a Thank you. yi nuyu nanu leen Ndiago Euro ak àdduna eh àdduna dóor na Ndiago Euro eh, dóor àdduna ba xañ na ci Ndiago Euro eh caxabal na ko tourné ko eh Ndiago àdduna daanu na àdduna daanu na àdduna daanu na Ndiago Euro daan na àdduna bismillah ko baba signal ak Bébé Ass signal moo ngeen moo ngeen moo ngeen Bébé Ass moo ngeen moo ngeen ruusu si yéen a dina war a bari bari jam jam moom ndeysaan da ngay nootoo ndeysaan ba tey signal Bébé Pass combat bi yàgg na waaw ndeysaan waaye dee fàttali signal ak Bébé Pass ak si biir kër gi bëri gi jam ñaar day rëpp na lu am daan na ko signal daan na Bébé Fass signal daan na ko signal daan na Bébé Fass ko na daan ko mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi combat bi dox ci petit l'enfant ak Hercule Hercule mbokk yi moo féete à gauche petit l'enfant moo féete à droite Hercule moo ngem boo ngemu kerole bi Hercule petit l'enfant Hercule door na Petit l'Enfant léegi. hey. Hercule ba ah door na ko door na ko door na ko ba ay daan. Hercule door na ko mu kaawoo. Hercule door na ko mu kaawoo. Hercule daan na ko. da koo door Petit l'Enfant coup ba mu jël baaxul. Jules de deux Karbala. Fàtt na ko léegi. mu ngi koy biij Diouldé 2 Karbala ñu ngay na ko da koy daan da daan jël daa na de Diouldé 2 Karbala ku daan Karbala daan na Diouldé 2 arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ arbitre baa ngi laaj ay jugeem laaj na trompeur laaj na Boy Diop trompeur takk na ba lewaatoo bi soriyaatoo na ay trompeur mooy lewaatoo lewaatoo bi bar na Boy Boy Diop cokaas na léegi trompeur nga xool trompeur mbokk yi moo ngemboo ngembul vax bi féete à gauche Boy Diop ngemboo ngembul bu xonk bi féete à Boy Diop trompeur Boy Diop daa mel ni ku bëgg dem waaye bu demee lan la fay fekk trompé Boy Diop ka daa bëgg a trompé Boy Diop waaye Boy Diop est-ce nangu trompé trompé ko Boy Diop nga dox ci kawam trompé tax door xool Boy Diop mag la laay lay la laa borom mag lay bëre Boy Diop trompeur Ndiéguène doole door na léegi jël na ko Boy Diop jël na trompeur trompeur da koo seen. Boy Diop jàpp na trompeur raaj ci lu mu nar lu mu ko a def trompeur ngay door nee na ma bëgg xeex xeex bañ xeex xeex Boy Diop trompeur. Trompeur Boy Diop Boy Diop Trompeur eh lu mu ko bëgg a def da koy daan waaw waaw Boy Diop daan na ko Boy Diop daan na Trompeur oh xale la vite fait bien fait doole yamul daan na ko Boy Diop daan na ko mbokk yi gis ngeen combat yi nga xamante ne xew na gis nga lépp lu xew ci ambiance gis ngeen combat yi su ma sañoon mbër mu bare ñu décortiquer la sa combat wax noo def ba daan sa adversaire man njàmbaar la woon ak xarañte ba daan la su ko defee xare yu bari jàng ci gis ngeen combat spécial bi dox ci diggante booy jum booy jóob ak trompeur mbokk yi mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la may ma saw supporteru booy Diop boobu nga xamante ne arène nationale la ma fekk toog di xaar di xaar di xaar ba combat spécial bi jàll mu way laaj booy Diop ba xam bëreegul wala bëre la ma ne ko yow tàkk nga bu yàgg booy Diop bu ngeen stade Diop Iba Mar yow yaa ngi arène nationale xam naa ni nag moom waroon naa koo xam ba koy ba koy bu baax a baax a baax xam naa ni seetaanul combat mbërëm te teel naa ñoo stade toog di xaar. xam naa ne nañ ñu ko jox ñoo ko jox fausse information ne ko làmb ji ñu stade rek boobu yaakaar arène nationale la. may félicité bu baax booy Diop di ko wax ni ndaanaan la ci làmb am na bëre bi macha allah mën na bëre am na lecture mu ngi mu ngi mu ngi wane boppam ci wàllu bëre. trompeur maa ngi lay encouragé bu baax trompeur yokkal entraînement yi. yokkal entraînement yi parce que xale nga war ngaa mën a am lu ne ci làmb te ki nga tuddee sa bopp muy trompeur mu mag ma numéro un ndaanaan la woon ci làmb kon boo ñëwee ci làmb góorgóorlul gën a la defaat effort ci làmb nga bokk am nga taay bi war ngaa mën a doon champion fi sa morom yi di toll ci làmb mën nga faa tollu kon li des mooy nga gën a yokk entraînement yi ba bis boo ñëwaatee ci làmb ñu xam ne defet bi nga mujjee am mettina la mbokk dañuy dem ci grand combat bi dox ci diggante Guiro Seras ak Tonnerre 2 su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem ci combat bi. ñu wax ak ñaari Guiro Seras ñoom ñaara ngi ci digg géew bi arbitre baa ngi wax ak ñoom. jox ko loxo waaw arbitre baa ngi laaj ay jugeem Guiro am na lu ñaan tofle ko suufle ko ci kanam gi Guiro Seras Tonnerre wala boog Tonnerre Giro moo ngem moo ngem lu bële li moo nu ginnaaw la nu jàkkaar lool Tonnerre ngem moo ngem lu bees li takk morso yi ci bopp bi munu cee ñàkk Tonnerre lee mun a ci kaw Giro Giro Seras Tonnerre Tonnerre wàcc na Tonnerre Guiro Seras Guiro Seras Tonnerre Guiro Tonnerre mépp na léegi Guiro Seras Tonnerre Tonnerre da koo bëgg a jàpp Tonnerre da koo bëgg a jàpp Tonnerre jàpp na Tonnerre jàpp na Guiro jàpp na lan mooy xew Guiro Seras Tonnerre Tonnerre xeex bi arrangé na ko daw na jàpp da ko bëgg a songale Guiro Seras jàpp nañu Guiro Seras Tonnerre Guiro jàpp na da ko bëgg a songale dana ko génnam déet Guiro Seras Tonnerre sa ba da daan waaw waaw Guiro daan na Tonnerre laay leela laa Guiro Seras daan na Tonnerre takk na ko bëgg ko bi Guiro daan na Gros Séras daan na Tonnerre bàyyi naa simil naa sàppo Gros bàyyi naa Gros Séras mbokk yi mooy mbër moo xamante ne saa yu daanee jël bu rëy lay daan Gros saa yu daane bu bëree daan jël bu rëy lay daan du daan jël bu ndaw parce que ndaanaan la ci wàllu bëre. Guiro Séras booy reporter combat am sax da ngay di ko da dangay am envie reporter làmb ji ndaxte day bëre ndax dangay gis technique ndax da ngay gis xarañte ci moom. Tonnerre maa ngi lay encourager bu baax ci Tonnerre laay njëkkee Tonnerre da doon bëre koo xamante ni ndaanaan la ci làmb mais dafa mel ni da ngaa desee xam kan mooy Guiro Séras Tonnerre bàyyi xel bi dafa ya dafa bari sooy bëreeg mbër mu mel ni Guiro Seras bul ko may mu firi bu firee rek pour nga daan ko day compliqué ci yow. bi arbitre ne prib li nga waroon def mooy ferme sa garde wàcc ci tànk yi dox ci ko am xeex ak moom ndax du daw xeex te Guiro boo ko gisee bu ni muy bëree nga xam ni bëre bi da cee boole xel macha allah ndax boo tegee tànk avancé mu teg tànk arrière mel ni dalaa ragal te ragalu la action bi bi nga ko defee benn yoon mu cëpp nga def ko ñaari yoon mu cëpp ñetteel bi xamoon naa ni boo ko defee di nga ci am mbetteel ndax dalay bàyyee xel moo tax saa yu ko zongalee day ànd ak yow boo ko bëggee wàccee danga koy wàcce ndànk ndax daa mën a bëre. Giro félicitation laa lay wax encore une fois sa diggante Nokia bi nga ñëwee stade la ma waxoon daa mel ni dégg nga ko ndax da ngaa bëre jël bu rëy daan ko ma ne la yokkal volume bi ndax volume bii nga indi ci làmb vraiment xeet naa ko mais sa diggante ak Nokia sa diggante ak Tonnerre 2 Guiro Seras progressé na ci yokk na état bi gën a la góorgóorlu yokk sa état gën a la yokk sa xarañte ci bëre gën a la góorgóorlu Guiro Seras entraîné ñëw ci làmb ndax ndaanaan nga ci làmb te làmb dañoo soxla ñu mel ni yow ci mbooloo ci mën a bàkku ci mën bis ci bëgg làmb mbokk yi ñuy félicité waat bu baax Fallou Ndiaye gis nañ li nga xamante ni wane na ko ci wàllu ambiance dégg naa caat sekk yëngal na ku ne jamaïcain sax da doon fecc ay gars yi promoteurs yu mag yi ñëpp a nga fa woon di yëngal seen i mbagg waa aayul di leen jaajëfal bu baax mbokk yi di jaajëfal Seri faatu ak Nafi mi nga xamante ni suma xarit la moom su ma ko waxee rek xam na boppam bàyyi seex yi maa ngi koy ñaanal gudd fan ak weer di ko ñaanal njaboot gi yëpp. moom suma xarit la suma lépp la. mbokk yi di jaajëfal bu baax a baax a baax képp koo xamante ne yaa ngi seetaan wasaare làmb di wax ne ku bëgg tisi bu baax tisi bu rafet tisi bu mucc ayib ci wàccaayu tabaski bii demal ci maam góor góor yombul tisi Ibrahima ree na xam nga ko am na fu mu jaar ak yow macha allah jaar dem leen ci maam góor góor yombul tisi mu nekk fële ci marché bu bees géejawaay vraiment di liggéey liggéey bu am solo mbokk yi dem leen fa mu jaay leen tissu yu mucc ayib numéro maam góor képp ku ko bëgg da ngay def 78 mbokk yi 587 ngay def def 96 96 78 587 96 96 moo mën ci wàllu tissu moo dàq ci wàllu tissu moo ëpp doole ci wàllu tissu mbokki di leen jëfal ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew laam am jërë ngeen jëf. Thank you.